la la la la la la la la la la la la la la la la ñu ngi sant yàlla ñu ngi may ñu dund bay waajalaat congrès bu rassemblement islamique du Sénégal ñuy sant euh, suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog bi Amir Cheikh Makhtar Kébé ñu koy ñaanal yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaayam gën ko jàppale ci mission bi nga xam ni euh, moom la yàlla bopp ba tey dawul rappul sonnul tàyyiwul ñu koy ñaanal yàlla koy xala bu baax ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax euh, ñuy sant di gërëm euh, suñu invité du jour yi suñu mbokk docteur Cheikh Gueye ci sama secretaire général en même temps ci cadre unitaire bi moom it yor pusoom rek di ñaw di defar vraiment lu yëngatu ci réew mi mu ngi ci boobu ba tey mu RIS nekk membre cadre unitaire mu am ci liggéey bu rafet a rafet bu kër Cheikh bu baax baax baax may sant di gërëm suñu càmmiñ euh, Paul Correa bu présence chrétienne ma bari ci ay xarit lool ñu leen sant di leen gërëm intervention am na solo torop torop torop ma euh, monsieur le modérateur cher père Yamine professeur euh, El Hadj Malick Sy Camara donc ma bëggoon rek intervenir ci en terme de contribution ci thématique bi nga xam ne tey moom lañu ñu gëm parce que xam nga dafa am léegi ko wax ne euh, Cheikh Makhtar docteur euh, message am changé wul parce que rassemblement islamique du Sénégal suñu message changé wul li ñu gëm loolu la ñuy wax te damay faral di wax ni ñun li ñuy wax ci biir néeg moom la ñuy wax ci pénc moom la ñuy wax ci tele moom la ñuy wax ci rajo moom lañuy wax ci université li ñu gëm mooy réew mi ñun ñoo ko bokk dañoo war a ànd rafetal àndin wi dëkk ci ku nekk gëm ci li nga gëm waaye nga rafet lu li nga xam ne moom si sa nawle ci li mu nekk nga respecté ku ci loolu parce que respect mooy base dundin bu sell vivre ensemble bi ñuy wax munul am tant que respect de l'autre munul am respect de l'autre boobu nag ku leen wax ni mën nañoo jibal yenn valeurs yi wala yëkkati kàddu subhan yàlla subhanahu wa taala ci pénc mi te respecté wuñ ñu ñu nekkal dañuy nax suñu bopp dañuy nax suñu bopp mooy dañuy yendoo yelwaat fanaani koo këpp parce que boo respecté nit ki ci noonu lay mën a dégloo li ngay wax ku nekk li mu gëm dafa foor ci moom boo ko respecté wul du am jotu sax taxaw déglu la bay mën a jëflanteeg yow bay mën a dëkkalanteeg yow bay mën a egganteeg yow fenn fi foog naa loolu aussi dafa nekk loo xam ne dañu ko war a bàyyi fépp fu ñu mën a nekk nañu gëm ni ay jullit lañu ay citoyens sénégalais à part entière lañu comme ni ñu ko waxee mais dañoo am ñoo xam ne dañoo nekk ak ñoom yow sa biir kër gi nga dëkk sax sa gisin du ñëpp ko partagé fi ngay sëy bi ngay sëy ñëpp partagé wuñ gisin bi penc mi nga nekk ñëpp partagé wuñ sa gisin donc yow amoo pour ne tey ma imposer li ma gis yow da ngay dëkkandoo ak nit ñi ci li nga xam ni moom la ñu moom la ñu gëm yow nga indi li nga gëm ku nekk jéem a maslaa ak ci noonu li ñu mën a ànd dëppoo ci ñu ànd ci loolu lu ñu mënul ànd ku nekk bàyyi yàlla subhanahu wa taala àtte parce que dafa am loo xam du suñu cër te mbubb moomu dañ koy faral di sol ci pénc bi loolooy indi erreur bi man pour man respect boobu dañ ko war di continuer di renforcer def ko nag muy lu dëggu ci ñun gis nga dëggu buñ ci nangoo wéet nañu dëggu ci lu ñu nekk mooy li ñu gëm nañ ko jëfe keneen ki nga xam ni dañu nekk ak moom nañ ko respecté ci li mu nekk bu ko defee ànd bi dina mën a yomb loolu mooy indi tolérance bi nga xam ne mooy deuxième axe d'intervention parce que bu ñu tolérant wul loolu mooy indi lu waay yëkkati nga foog ni yow sa point de vue rek moo war a primer le premier acte de terrorisme c'est le terrorisme de l'intolérance il faut aussi qu'on apprenne à être toléran tolérant boobu nag mooy mën a tax yow nga xam ne yow am nga liberté wu gëm li nga gëm am nga liberté wu solo ni nga solo am nga liberté wu jàng li nga jàng am nga liberté wu jëf li ngay jëf mais jàppal ne keneen it am na liberté boobu nga nangul ko loolu ngeen ànd ci loolu penc mi mën a defaroo beneen bi nga xam ne nag mooy li ñuy remarquer malheureusement au Sénégal les conflits deviennent la norme parce que l'intolérance est en train de prendre un pouvoir extraordinaire tey ku xool li nekk ci réseau sociaux yi gis li nga xam ne moom moo ci nekk ci wàllu politique bi ci wàllu diine ji ci wàllu société bi ci wàllu xeet yi ci wàllu waaso yi ci wàllu tarix yi nga gis ni tey intolérance boobu dafa dem ba particularité du Sénégal et pourtant sénégalais dañ ko doon peindre comme quelqu'un de de serein de calme de ku am teraanga ku mën a maslaa ku mën a dëkkandoo ak nit bu ñu demee nag ba loolu lépp amatul ku ci nekk ci ñu braqué wu jàpp ne fi nga jàpp rek mooy dëgg loolu après dafay indi laytaay boo xam ne du jig réew mi nañu góor góorlu ba li nga xam ne mooy éthique de la différence ñu mën ko cultiver éthique de la différence boobu moo lay taxal yow nga mën a dëppoo ak nit ñi ci valeurs yi nga xam ne moom nga gëm ak ñoom tamit lu ñu gëm ngeen mën a mën a nangu différence boobu mu mën a mu mën a nekk maintenant pour man solution yi lu très la damay faral wax ne ñeenti dee kese la nañu defaraat jikko yi nañu defaraat jikko yi ku ci nekk ci ñun na wéet ci moom digganteem ak yàlla kese xoolaat boppam parce que balaa ñoo natt keneen ki nañ natt suñ bopp a pare nañ natt suñ bopp ku nekk ci ñun sa bopp doy na la projet loolu nag boo critiquer bu ñu naree critiquer nañ critiquer suñu bopp bu ñu naree defar nag nañ defar jëm ci ñeneen ñi defar jëm ci suñu bopp mais jikko yi nañ ko liggéeyaat ba nga xam ne ku ci nekk ci ñun dina góorgóorlu ci boppam ñu renforcer jokkoo bi parce que sans communication am na léegi ci ci intervenant yi ku ko wax bu ñu bu ñu bu ñu waxtaanul du ñu xamante bu ñu xamantewul du ñu bëggante bu ñu bëggantewul du ñu jëflante bu ñu jëflantewul du ñu jàppante loolu aussi dafa am solo mënuñu toog rek suñu coin cercle bi ñuy fréquenter rek ci lañ yem yow tey noo xam en dehors de ton cercle qu'est-ce tey xëy na bu ñu bu bu ñu bu ñu euh, jàppalantee li wala fi di wax bu ñu sokkorloo day tax ñu gën a xamante gën a ñemewante gën a bëggante cofeel mën a juddu suñu diggante man xëy na xaw ma mii nu ma woon docteur Cheikh Gueye dama ko doon gis rek ci cadre indaa mu may séen mais tey gis naa ni ni ñu xamantee léegi ak ni mu xamante Cheikh Makhtar Kébé ak xëy na même Chérif Mballo mi nga xam ne dama ko doon séen di wax ne waa axlul bayti la miinu ma ko damay gis rek ni waa communauté chiite bi la après ku nekk taxaw mais xëy na am nañ tey ay convergence yoo xam ne di nga gis ne kii kat lii mooy point de vue nga partagé ko nga ñàkk ko partage di nga ko respecté ci loolu mu respecté la ci li nga gëm te sukkandu tey kenn yóbbu ay oomam beneen axe bi mooy jëf ji nañ ci góor góorlu parce que lépp ci action la nekk action man damay rafetlu bu baax par exemple tey li présence chrétienne di def ñun ci social bi ñu ngi ci école yi ñu ci sensibilisation bi et pourtant ñoom dimension laïque bi dañ koy prôné tey waxuñu kenn kaay nekk li nga nekk mais ñi ngi jëf ñun tamit risque ci loolu lañ nekk am na ñeneen aussi ñu ci nekk nañu lu ci jëf lu baax lu jëm ci pénc mi loolu mooy defar pénc mi tey koy woo ci yoonu yàlla te biiram feesul bu feebaree amul lu mu fajoo bu xiifee amul lu mu lekk day taxaw di la seetaan ba nga pare mu jàll ca leneen bu Zeyda Zaman ñëwee woo ko jox ko xaalis mu topp ko ah? aussi jàppalante bi nañ ci liggéeyaat lu ci vraiment daal loolu laa bëggoon na indi contribution di wax nag ni mbooloo mi taxaw nañu jëm ci suñu congrès nañ ko def suñu xew nañ ko def suñu événement ku nekk am nga sa bës ñun suñu bës mi ngi waaj a ñëw dañuy door a door fi mu nekk nii nag nañ ci góor góorgóorlu dox jëm ci xam ni à partir du 27 suñu xew la rassemblement islamique du Sénégal moo xew xewle nañ ci woo ñëpp parce que ñun mbooloo moo xam ne la ñëpp a ci ànd ñun amuñu frontière lenn rek lañ gëm nañ ànd ci luy rafet luy penc mi luy jëmale penc mi kanam luy jëmale jikko yi kanam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la